élevage moom euh, vraiment ñoom jël nañ seeni i engagement ba mat kon nag foofu itam duñ fi sori Ageroute non non non Ageroute dafay nekkuloon amuñu abattoir non non non Hmm? a confirmé ça agir dafee nekkul woon moo tax abattoir waaw d'accord donc chercher abattoir hmm. waaw ñun demandé woon nañ ko demandé nañ ko pour ñu constater ko waaw waaw abattoir sax bokkoon na ci recette yi euh, kii kii yi njëkka yi def waaye nag euh, waa élevage moom dañ doon dañuy jël vraiment lépp en charge euh, confirmé engagement requête ba baax na kon xamaa loolu après bon pour Ageroute Ageroute dafa ñu woon la dernière fois am nañu ay demande yu ñu ko def waaye euh, yaakaar naa jotuñu ci prononcé wu xaw ma nag actuellement ñu ngi fem déet mais euh, même doléance yi daan la ñuy euh, demandé waat Ageroute Ageroute voilà comme Ageroute a ngi fi donc doléance yi kon di nga di nga jël kàddu donc doléance yi comme la dernière fois kii ñu kon moo tax ñu ne à confirmer donc dañuy ñun dañuy réitérer suñu suñu demande euh, liñ ci réitérer nag dem na ba ci yeneen dëkk yi nekk aux alentours aussi yoo xamante ne soxla woon nañ ay piste ak yu demee noonu waaye euh, bu prononcé woo fii rek euh, dinañ gis ba xam yan solution la ci bëgg apporter pour électricité électricité déjà ñoom ñu ngi nekk en place ñoom commencé nañ ñëw euh, préfet euh, depuis samedi waa éle waa waa service électricité kii ñu ngi seen la commencé nañ donc fi mu ne ñu ngay commencé vraiment di liggéey di déplacé wu di ñu ngi ci liggéey bi actuellement euh, yóbbu nañ leen ci xalif général bi itam ñu ñaanal leen vraiment ñoom pour le moment ñoom ñoo fa nekkagun démarré nañ seen i activité seen i engagement yëpp jëloon nañ ko nag waaye ni ñu ko jëlee woon tàmbalee nañ ko ne aussi waaw xañ na groupe électrogène yi ñuy demandé ci électricité Euh, dañoo bëgg euh, ci cérémonie officielle bi wala ci yenn jàng yi ci guddi gi en cas de coupure ñu mën a continuer suñuy activité <clears throat> donc foofu rek la ñuy soxla groupe électrogène secours secours en cas de coupure surtout ci point euh, stratégique yi nga xamante ni moom la ñu am di penc mi ak kër xalif bi yoo xamante ni du tee dina lëndëm dina am waaye dinañ mën a continuer activité jàng yi Euh, secours lay doon moo tax joxewuñu nombre bi ndax euh, xamuñu nombre bi nu muy war a toll wala puissance bi nu muy war a toll euh, loolu Senelec dina ci prononcé wu mais dinañ ko soxla en cas de coupure de courant en plein gàmmu loolu daal ñun fi ne moom mooy mooy comme ci Senelec la yem pour affaire matt mi c'est vrai ñooñu itam am nañu ay nit yoo xamante ni def nañ ay demande dinañ ko indi ci eaux et Euh, comme ça ñu ñu ñu accepté ko comme ni ñu wax ndax nee nañ seen demande yi ñu li ñu demandé accordé nañ ko kooku itam amatuñ ci beneen kii comme accordé nañ ko ñun dina leen yóbbu demande yi ñu ñu ñu. Ah, di demande ñu leen à partir de Dakar wala. à partir de Thiénaba ah, waaw Thiénaba lañ daan jaar mu ñëw fii ci euh, au niveau régional bi wala départemental. pour ñi nga xamante ne am nañu ay matt jële ko Tamba di indi wala ñu jële ko ay yeneen kii fu mel ni mbali ñu man leen a accordé ñu mën ko acheminer dafa am ay taalibe yoo xamante ni dañuy indi ay matt di ko di ko di ko di ko joxe am aussi ay nit ñoo xamante ni dañuy jënd ay wut ay matt pour nit ñi di ci togg donc facilité matt moom mu mën a ñëw loolu la ñuy def demande waaye ñoom nee nañu su ngeen ci defee demande incha allah dinañ ko accordé donc côté boobu euh, ah, waaw waaw euh, kii nee na dafa am quota boo xamante ni moom la xalif bi daan am du jóge Dakar di ñëw ah quota boobu kon xañ ne buñ ko teelee xam ak situation euh, ñii fi nekk ndax it euh, ñun ñu ci affaire yi. accord. kon accord. d' accord kon loolu kon dinañ ko noté. baax na. ma ma dolli tuuti baax na waaw ci ci Azerul ñu ngi sant bu baax xam naa jamono yi yëpp canaba dañoo nemmeeku ne Azerul liggéeyul ak canaba. góor na loolu nag xam na yàgg. waaw te dañu miinoon nag jamono ju rek. Azerul dinañu may ay quelques kilomètres. goudron wala kilomètre latérine mais am nañ extraction yoo xam ne depuis 2008 ak léegi Ageroute liggéeyu ca ak canam moo tax sax ñuy ñuy demandé toujours ay deux ponts deux ponts deux ponts parce que 2008 ak léegi benn benn Ageroute liggéeyu fa moom du latérite du goudron panneau signalisation bi 2008 ba léegi waaw extraction yooyu ay kilomètres ay nit ñaa nga fa dëkk ku am camion xeer da ngay sonn ku am camion suuf da ngay sonn ku am camion ndox da ngay sonn depuis 2000 ak nekk waaw léegi tam Azurut même bu amul budget pour liggéey Thiénaba itam ci anam am na yeneen liggéey parce que année yi passé ñu ngi demandé ay territoire pour corniche bi pour sécuriser ko loolu amuñu ko ba nagati cinq ans ngi nii chaque chaque CRD dinañu ko indi ji mais def ay panneaux de itam soxla nañ ko parce que Thiénaba circulation ko dañoo am ay clando am ay cak-cak am ay eh, jakarta ba doon nañ ci réunion sax dimanche passé kon paño paño sensibilisation stock yi ak ralentisseurs yi loolu cana ba soxla na ko ci gàmm gi ak ay trottoir yooyu soxla nañ ko waaw panneau signalisation bii ci asur bii bii ci kii bi nag bii ci kii bi te préfet doon ko wax léegi péage bi boobu moom chaque année ñu andi ko di ak autoroute bi péage pare parce que taalibe yu bari dañuy sartaagal ba ba xombal bu ñëwee di ko wax ñu doon ñaan daal leen ngeen insisté bu baax ñu defoon na romb naa fa nag léegi boo xam ne semaine bii lañ ko def pour wane ni ñu jógee ñu jógee nii. balaa ngaa wàcc pexe bi sortie 10 sortie 2 boo jógee cees nii di dem euh, euh, wuti xombal am na sortie 2 booy woote wàcce Kër Madar sortie boobu la ñuy la deful ca Rabat donc da ngay da ngay continuer dem ba ci xombal soog a retourné. ci sortie 2. waaw nga xam ne boo wàccee. waaw Thiénaba fa nekkoon sortie 2 amul Thiénaba boo dikkee ba sorti de xam nga dafay am dañu dañuy orienté Thiès beneen sens bi ñu bind fa Touba foofu ñu bind Touba it mën nañ faa bind Touba ndax mën nga faa jaar dem Touba mais ñu dolli fa Thiénaba ñu dolli fa Thiénaba waaw loolu la Ageroute mais yàgg mais Ageroute moo moo kiiwul donc Ageroute Ageroute maanaam comme ni nga ko waxee depuis deux mille deux mille huit ba léegi eh, dafa yàgg waaw

ba ba pare aussi euh, sens de circulation bi ngay wax nañ ko kooku sécurité lay doon waaye agilité tam mën ñu cee orienté ci ay panneaux de signalisation yoo xamante ni ci biir ay sens interdit ay stop yu demee noonu nga xamante ni euh, côté euh, kii route wala wala ñoom waaw direction transport la ñu demee noonu. waay waay wax nga dëgg. Hmm. waay. waay bëgg nañ demande demandé nañ aussi ñu wut benn garage aménagé benn garage boo xamante ni camion yi ak pèlerin yi bu ñu dikkee wala yeneen oto yu mag yi suñ wàccee seen nit ba pare dem foofa gaare fa mu nekk benn garage bopp parking ñu aménage benn parking boo xamante ni dinañ mën a dina dina kii loolu daal moo nekkoon li ñuy demandé ci agir